mbokk ñi seetaan dal leen jàmm ci sans limite TV ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay tey nag oustaz Oumar Sall nekk waaraatekat moo ñu dalal fii ci plan Jaxaay oustaz Oumar nag euh, miin nañ ko ci euh, waxtaan yi mi faral di def ci réseaux sociaux yi lu ñu fas yéene waxtaanee nag moom ak tey day dellu ci wàllu actualité moo xam euh, diine la wala itam jamono donc duñ guddal trop la bàyyi oustaz mu ñoonteeg waa Sénégal. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ñoo ngi nuyu ñëpp incha allah di leen tatagal di leen nuyu yéen tamit yéen waa sans limite di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen mu defal ko mboolem julli incha allah rabbi ñu ngi nuyu ñëpp incha allah. si tënk kan mooy Oustaz Oumar Sall. alhamdulilah rabbil alamin Oustaz Oumar Sall de fi mu ne naa xanaa nit ñi dañuy bëgg a xam waaye jamono fi mu ne commencé ko koo xam ñu ci bëri xam ngi nag mooy euh, benn jaamu yàlla la rek boo xamante ni kenn la ci jaamu yàlla yi. Euh, way juram tudd Ahmed moom lañ muy dàkkante de Umar Ahmed Sall euh, way juram bu jigéen tudd a Sow mu juddoo ñetti mbaar yaroo caaroy màggee fa ba tool ni mu tool doog a ñëw fii ci daaru cub incha allah kooku mooy Oustaz Omar Sall. ndax oustaz am na beneen activité bu ñu ko xameegul waaw alhamdulilah am nañ yeneen activité bu dul waaraate comme li ngeen fekk ni defe naa ay bët moom du du teew borom di laaj feneen lii ngeen fekk ñuy def nii mooy muy suñu métier muy médecine traditionnel africain prophétique bi ci loolu la ñuy liggéey mooy ci wàllu faj soor feerwar yëpp incha allah yàlla dogal na dinañ koy dinañ koy saapare fii boobu daal mooy suñu métier bu loolu ak jàngale ak waaraate loolu daal mooy suñu métier incha allah rabbi. gis ne Oustaz Oumar ñu gis ne dafay def ay vidéo ci YouTube pour dénoncer yenn dérive société bi ñu bëggoon a xam lan moo doon euh, say motivation pour nga def loolu. alhamdulilah rabbil alamin euh, lii suñuy motivation bañ di ko def mooy képp koo xamante ni boroom xam-xam nga ci réew mi nga bokk ci ñuy yëngatu ci réew mi gis nga société bi dérive yi ci nekk ni mu bare am ci nag ñoo xam ne dañoo taamu li ñuy tuddee maandu xam nga sénégalais dafa am ñu ñu déggee maandu. ni ñu déggee maandu mooy nit ki daal lu ko neex def nañu ko seetaan feek laalu la loolu la ñu déggee maandu fekk loolu du maandu maandu ci diine mooy nit ki bu defee lu islaam nanguwul dañ koy corriger ne ko lii islaam nangu ko ak ku mu mënti doon nag ñun ñoo ci yem. léegi nag ma gis jàngat maandu jàngat société bi gis li ñuy tuddee maandu ndekk loolu du maandu. loolu loo loolu moo ak njubadi la parce que nit bu deful du yoon dañuy taxaw ñu dénoncé ko ne ko du nii du nii du nii surtout mbiru diine loolu rek moom mooy suma motivation te xam naa ne loolu la yonente bi taxawoon loolu la saxaaba yi taxawoon moo tax bu ñu gisee lu dul noonu aussi ñu taxaw ci wax ci buñ ci waxee lu mu néew néew doonte benn wala ñaar dinañ ci gisee ñu kon ñu jël loolu incha allah rabbi oustaz lan mooy say relation ak euh, différents kër diine yi am fii ci Sénégal. sama relation ak ñoom xanaa jàmm ci li yaakaar jàmm ak salaam ndax ci ñoom laa bokk. samay wayjur ci ñoom la ñu bokk foofu lañ juddoo tey su ma waxoon samay wayjur sama jaar-jaar ñu bari tey danañ noppi ndax bokk gu ma bokk ci kër yooyu su ma ko fësaloon euh, defe naa tey mën naa taxaw bokk fi nit ñi taxaw waaye dama xam ne loolu amul benn solo këru diine amul Sénégal kër yëpp këru diine la man dama bañ baat boobu këru diine déedéet kër yëpp këru diine bépp kër gu ñuy wax ashhadu an laa ilaha illallah di jaamu yàlla këru diine këru kilifa diine nag am na nit ki mën na nekk kilifa ci diine loolu mun na nekk mais ala kulal sama relation ak ñoom moom mooy jàmm ak salaam incha allah rabbi. xëy na dañuy dugg ci wàllum euh, actualité xëy na dégg nga coowal bi euh, borom euh, ñaari tur yi xëy na mu doon thème boo xamante ni mu ngi am un peu d'ampleur mën nañ ko wax ci société bi. ñu bëggoon a xam ci noonu lan ci lislaam wax ak sharia. waa islaam day li mu wax ci wàllu ngóor jigéen muy borom ñaari cun tur yi li ci borom bi wax leer na li ci yonent bi wax leer na yàlla subhaanahu wa taala bugg ko ndax acte contre nature la. loo xamante ni xaj sax rus na koo def golo rus na koo def les animaux rus nañ koo def kon bu nit ñëwee di ko def kon mooy nit wàcc na ba ci asfala saafiliin bi yàlla doon wax maanaam nit dina toll étape boo xam ne day yëkkatiku. romb lépp mais mën na wàcce wàcc bu suufee mooy bu demee ba ngëm yàlla mayetu ko mu xam mooy kan en tant que góor gi di def yëfu jigéen wala jigéen di def yëfu góor ba ñu tuddee ko acte contre nature kon su boobaa jëf jooju jëf ju bon la yàlla da koo ne yonent bi sallallahu alayhi wa ko kon koo ne ba ni bu ñu fekkee ñaar ñu koy def góor bi ak beneen góor ki féete kaw ki féete suuf ñëpp nañ leen rey parce que ñooñu baaxuñ ci ab société kon loolu xam nañu lu islaam xeex la lu islam bañ la position islaam mooy da koy xeex fu mu mënti toll incha allah rabbi. say kàddu mujj. phénomène bi nga xam mooy phénomène góor jigéen de sama kàddu mooy la ci daan wax rek xutba yañ ci daan def ak lañ ci daan wax moom mooy euh, way jur yi am na foo xamante ne ñoo bàyyi seen rôle ndax wayjuru du jur doom rek war ko seetaan doom duñ ko élever élever dañ koy éduquer mais tey boo seetee nit ñi dañuy élever mais du duñu éduquer sa doom daal léegi li nga ci seetlu ne wér na lekk na naan. na jàng mais nañ ko corriger fekkatoo ko ci benn borom kër su boobaa nag bu loolu amee dérive yi am fa lay tàmbale parce que télé baa ngi ci kër gi. dañuy seetaan lu nekk dañuy gis lu nekk te bu xale bi defee lu dul noonu yaayam seetaan ko wala papam seetaan ko day foog ñu loolu lu war a nekk la loolu ci biir kër gi lay tàmbalee génne ko ci pénc mi génne ko ci dëkk bi ñëpp daal di koy bokk su ko defee loolu mooy tax kenn ku nekk am sañ ci li mu lu ko neex mu def su loolu amee na mooy société bi dafay nekk société bu yàqu kon sama kàddu gu mujj ci loolu mooy nañu koy xeex fu ñu toll mooy nañu waxal nit ñi nañu dellu ginnaaw te xam ni dee mi ñuy xaar nañu dellu ginnaaw te xam ni yàlla subhaanahu wa taala yàkkamtiwut kon xale yi góor yi jigéen yëpp nañu moytu góorgóorlu dellu ci seen borom loolu moo ci sama kàddu gu mujj incha allah rabbi sax ñu desandi ba tey ak yow si question actualité xëy na ci ay jamono yu ñu wees euh, ay élèves jigéen lañ dàq seen école école française ndax dañuy muuru lan mooy sa jàngat ci cas man de analyse bi ma ci def mooy mosoon nañ ma am na ku ma ci laaj ma ne ko du ma ci tontu loolu laa ko xoon waaye dinaa ci tontu xam nga tax ma ne ko du ci tontu uude euh, nu mu la gisalee rek la lay ëwalee mag ñi dañuy wax naan bukki bu dabee waxambaane ci ci doxin bala xam nga Saint-Jean d'Arc li ñu def nii bu ñu dalee ñun société sénégalaise bi mais ñun la société boo xamante dañu 98 pour cent musulman lañ ñoom ñoo jël seeni doom yóbbu ko ci école yu mel noonu naam certes baax na jàng fa baax na mais bu demee ba école boobu tey mën a taxaw ne kenn du fi muuru kenn du fi nangam su boobaa mooy waaye jur yi ñoo deful seen rôle ndax moo ñoom dañoo yore bu ñuy jaay. marchandise bi ñuy jaay ñun dañoo yore lu koy jënd ñu ñëw di ko jënd règlement intérieur bi dugaluñ ci woon loolu école bi yàgg na fi ñun yàgg nañ fi mais mosuñ ko dégg ci école bi dégguñu ko fa woon école bi dem ay nit di fa génnee ay cadre di fa génnee ay góor ak jigéen dem ba ñu toll ci jamono boo xamante ni àddunaa ngi indi ay problème ñu ne koy muur di fi jàng kon dañ ñuy tester rek jullit ñi la ñuy tester seen ngëm-ngëm fan la toll mais alhamdulilah kon loolu warul mën a jàll waruñ ko mën a seetaan ndax muuraay jaamu yàlla la dëgg-dëgg buñ bu ñu nax suñu bopp jaamu yàlla la dégg naa ñu ciy wax ñoo xamante ni danga may reetaan sax ma xam ni xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam lu neex nit rek mu wax xam nga tey muuraay yàlla moo ko santaane yàlla moom moo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow ak say soxna ak sa waa kër ak jigéenu jullit ñi nañu muuru loolu nag diine la nekkul aada. comme ni ko suñu benn jigéen di waxee fii ma di ko dégg ba mu indi ñu beneen saar alxuraan léegi daa mel ni 115 saar la parce que suuratu hijab maa koy doog a dégg xam nga Sénégal ngay dégg nit lu ko neex wax yow la nga jàng yem ca diine jànguloo ko maandul loolu mooy ragal yàlla li nga jàng jàng jàng diine waxal ci li nga jàng mais diine jànguloo ko mais boo taxawee am na baat booy wax dañ naan dangay xeex diine donte sax mën na am xeexul diine man jàpp man day xeex diine mais ñàkk xam la mais muuraay moom yàllaa ko santaane ni ko yàlla santaane nag bu fekkoon suñuy nit noonu lañ ko doxalee ni ko mag ñi doon doxalee démb ña ñuy wooyee mag ñi démb jigéen xamul woon jaxara ko jigéen ñi dañ daan muuru xoola yaayi sëriñ yu mag yi fii seen yaay bu ñu la ko wanee da gis ni dañoo muuru mais ana lan moo tax ñu dem ba muuraay léegi nekk choix nit ki tànn bu ko neex def kon su boobaa nit ñi ñoo bàyyi seen biir mais muuraay diine la nekkul aada mais diine la incha allah rabbi. xëy na tamit oustaz dégg nga euh, bi nga xamante ne ni dafa sax tax am ñu jóg organiser benn téléthon ñu bëggoon a xam euh, ci noonu lan moo tax euh, gisuñ ci sa loxo. waa alhamdulilah rabbil alamin yàlla rek mooy def lu ko neex di wax lu ko neex mais gis nga ñi ma nekkal nii ñii toog nii ak suma waa bureau bi xam nañ sama intention ak ni ma ci dox xam nañ ko yàlla xam na ni avant ñuy waajal aj jour bi ñu ne tey jël si nañ ko këram jour boobu. te ginnaaw suba sa laawoo sama waa kii ne ah tayib suñu mbokk la te waaraatekat la waxtaanukatu diine la waruñ ko seetaan comme jiitu woon na suñu benn frère bu feebaroon amee woon cancer ñu defoon benn kii presque ci ci ci internet bi ba nit ñu defoon ko ay ndimbal muy faju ba mujj gaañu yal na yàlla yërëm ko ma ni leen kon man dama jàpp ni tayib war nañ ko defal lii war nañoo waxtaan ci laa jóge fii dem kër Alioune Sall ci guddi gi ñu ne ma ñëwagul dafa génn. ma toog deux jours trois demaat fa ñu ne ma dem na màkk boobu ñu ngi wàjjam te man maa ngi doon wàjjam màkk ma ni booy lii day waroon nañ cee taxaw comme Alioune Sall am naa numéro am woo naa ko ay yoon jotuma ko dem naa këram jotuma ko war naa ci taxaw mais nag ni ma defoon ci bee du ma ko ci def ndax te tey am na ñu gën a yey ci moom donte man yey naa ci moom ndax bugguma woon def lu mel noonu te awma fu ma koy teg yàlla dogal loolu ma dem màkk biñ demee màkk ba ñibbisi alhamdulilah ma dégg oustaz Iran Ndaw ak Alioune Sall taxaw ca la ma namoon man ma sant yàlla bu baax lu tax ma sant yàlla mooy man ndeke la ma bëggoon am na ñu ma ci jiitu bëggu ko ma ni comme ñooñu jiitu nañ ma ci te bëgg ko comme ni ma ko bëggee naa taxaw ci la ma war a taxaw mooy ma def sama liggéey ci suuf lu ma am yónnee lu ma am joxe loolu moom maa ngi ci donte nag sama tur joxewuma ko wax dëgg yàlla joxewuma comme ni gaa yi def diw joxe na nangam joxewuma ko Alioune Sall moom seede na ne woo naa ko am na lu ñu wax mais lamay joxe lu mu képp am na fu mu jaar ak ñay joxe am na fu mu jaar mais alhamdulilah lu ma métit lu la lu ma naqarlu la te maa ngi ñaan yàlla mu mat incha allah ba mu génn ci jafe-jafe yi mu nekk incha allah. ñu desandi ba tey ak yow ci kaw Taib Socé bi euh, ginnaaw ba ñu taxawalee téléthon boobu noonu dafa am euh, benn ci benn ci ay kilifa diine euh, maanaam Ahmed Khalifa Niass génn ne collecte de fonds boobu noonu tënkuwul benn yoon ak charia. lan nga xalaat euh, ci wax jooju. waaw xam nga Sénégal moom dañoo toll ci jamono boo xamante ni euh, ñun waxuñ sax ci waxi charia problème bii du problème mu charia moom dafa juum li tax mu juum mooy kii jullit bu am jafe-jafe ak yoon la yoon am lu mu ko topp libéré woon ko loolu fayeegu ko yoon jëlaat ko ay mbokkam jóg ne dañuy laaj ndimbar pour dimbale ko ana charia loolu kon du problème bu ñu wax sharia koy digle wala diglewu ko ñaareel bi mooy xam nga léeg-léeg nit wax dara loo xamante ni da ngay xam ne dafa ngéeju rek na ko seet moom bu ko daloon wala mu dal njabootam moom foofu la waroon xoolee. lii lii lii may may kaas ngir kii mu dal su fekkoon man la dal wala sama njaboot ndax duma ko bëgg kon loolu man jàpp naa ni wax boobu mu wax xëy na ñàkk comprendre diine moo ko indi wala saboté wala maa tey waaye loolu moom kenn duñ wax ne diina nanga islaam lu mu rafet lu la jullit fakkul asir islaam da koo santaane alquran da koo wax te gis nga nit ku ñu jàpp di ko fayikul bor même tey kuy génn azaka ci ñun sa azaka war nga koo jox lan moo tax ndax dafa amee bor ñu ngi ko téye te day jëriñ société bi kon war nañ koo fay lool kon kon bu nee islam waxu ci man dama jàpp ni nañ ko bàyyi moom mu nekk koo xamante ne fu ko neex mu jaar rek waaye moom ñi xam xam nañ ni lii ko incha allah rabbi waaw sax dañu dégg ay rumeur comme quoi que sa diggante yow ak Ahmed Khalifa Niass dafa am ay ñagas-ñagas est mën nga ñu euh, leeralal si loolu. <laughs> déedéet Ahmed Khalifa amul ñagas-ñagas wax dëgg yàlla yëguma ko de man yëguma sama ñagas-ñagas ak moom donc dëgg dëgg dëgg yëguma ko du nag du dañuy jokkoo du ñuy jokkoo du ñuy wax téléphone du ñuy kii dara amaan na sax bu doxoon moom gis ma peut-être ci internet bi la may xàmmee xanaa. ak jamono bi ñu toll mu wuteeg démb man moom mën naa ne xàmme naa ko ndax ci seen kër yi jàngee naa fa waaye pour mën ak moom jote wax dëgg yàlla amul te ñaanuma ko yàlla incha allah te it duñ jote bu neexee yàlla.